téere bi euh, boo gisee ma bind ko mën nañu sabab bi lend rek la euh, bi événement yi xewee juin bi passé après bi ñu àttee affaire Adji Sarr ak Ousmane Sonko ku ne gis na ci ñàkk seen bakkan ku ne gis na li ci xew ci ay yàqu-yàq ku ne gis na li ci xew ci ay gaañu gaañu ku ne gis na liñ wala dégg nga liñ ci wax ci yëkkati ci ay kàddu te mu doon loolu ni naxasal na république néewal na ko doole walla indi na euh, euh, tolo euh, ay jafe-jafe ci biir réew mi bi loolu xewee nag ma wéet ak sama bopp ma ni kat li waral li du ñàkk man am na lu ma ci xam te sama liggéey mooy jéem a leeral mbir kon naa ci jëf ay jéego ngir kat dinaa mën a wax askan wi loolu nii dañ ci mën a téye ni kat mbir mi waral coow li lii moo ci xew moo tax ma def ab ab gëstu euh, ndax am na lu ma ci jotoon a xam euh, balaa boobu ndax ñi nga xam ne ñoo ko seq am na ñu ma ci dajel am na ñu ci gis am na ñi nga xam ne ànd ak ñoom di ngeen gis ci biir livre bi euh, lu ma ci nettali ci lu bari te aussi gis ngeen ci ñi nga xam ñoo nekk ci mbir mi ñi ko seq ju ci bari. yàgg nañuy wax ñuy dégg yàgg nañoo wax ci ñoom wala yàgg nañoo dégg ñuy wax kon nag bind livre bi jafewul woon ci man waaye bi ma koy bind dama ni kat lii na Sénégalais xam lu ci xew lan moom wundu lii ak la ko waral ma jàpp ni tamit am na ci ka nga xamee ni mooy ndey bi liggéey muy Adji Sarr saaga nañ ko xas nañ ko wax nañ ko lu ne ay moroomi baayam ay moroomi yaayam ay moroomi maamam wax nañ ko lu ne te xamuñu ko mosuñu koo gis wala mosuñu koo dégg man ne nag ku mel nii nag dëgg-dëgg te xëy na li ko waral mooy doomi ke du doomi kenn ku ñu xam xëy na néew dooleem la ak euh, moo tax que lu ñu yëkkati teg ko ci kawam ma ne nag ku mel ni kat jar naa jox kàddu wala jar naa déglu jëkk naa dajeeg Adji Sarr bi mbir mi soo xew yàgg na wax naa ko ñëpp xam nañ ko ba ma waxtaanee ak moom mu wax ma li ci nekk ba ma ca génne dama ni ah xale jar naa déglu jële bi xale bi de jar naa may nopp néew ma li mu wax dama koy jox dëgg tax du man may atte waaye kat jàpp naa ni que ku taxaw li def lañ man mbir taxaw ca fa taxaw ba mbir ma xawee ba léegi mosoo ci changé ku ko mas a dégg la mu wax démb ak bëgg dem la mas wax bu amee kenn ku wax leen kay mooy xëy ne ñen ñi ko seqal waaye moom lam doon wax mosu cee jóg ma ne kii kat jar naa déglu loolu nag moo indi tey ma indi euh, ci livre bi témoignage ba nga xamee ni que ay heure d'enregistrement la ya nga xam ne moom moo wax ci dundam ay jaar-jaara ba mu juddoo ba ni mbir bi xewee ak ak nu mu ko dundee kon loolu mooy sababu livre bi képp ku ko ci lire jàpp naa ni que di nga ci am loo ci jëlee te loolu laa ci ñaan. non livre bi boo gisee dama ni lu mel ni ku koy bind doo ci doo fowantu da ngay teg la nga xamee ni que kat ku ko gis doo ci am loo ci mën a euh, diingat moo tax am na ay journalistes yi xëy dama bi ma jàng bi ma ko paree dama leen ni xoolal leen ma lu ngeen ci xalaat ay jurist ay journalistes yu nekk Sénégal yu nekk bitim réew. ki nga xamee ni moo nekk déclaration di Adji Sarr def na déclaration euh, ba nga xamee ni transcrire nañ ko bu nekk ci livre bi bi ma pare avant may def imprimerie jàpp naa ne rafet na may yónnee ko ko par le biais de avocat ni ko kat livre baa ngi noonu xool leen ko bu ngeen ci amee lu ngeen ma ci wax ngeen wax ma ko ci. kooka teraanga la wala teggin la wala ab cër la ba nga xam ne jox naa ko ko. Euh, loolu wax dëgg yàlla def naa ko te ñoom aussi amul luñ ma ci euh, avocat bi del si waatul ni ma lii baax na ci wala lii baaxu ci wala lii et cetera kon information woon jox naa ko ko euh, partagé naa ko ak moom comme ni ko partagé ak ñeneen lool boo gisee aussi xam nga boole nit ki wax na wax na wax na xam nga journaliste nga boo defee nag ak nit interview sax wala nga retrace ay propos la professionnellement laaj na léeg-léeg nga ni ko tax propos yi ndax validé nga ko hmm, loolu def naa ni professionnel journaliste bu nekk war na xam lu mel noonu. non parce que defuma transcription ay interview Ousmane Sonko dama jël ay déclaration Ousmane Sonko seen déclaration publique euh, ci seen télévision ak seen i rajo ak journaux yi loolu moo tax defuma noonu. yow ci sa bopp boo posé question da xam ni que loolu moo xew xam nga ni Sénégal mosu fee toog homme politique bu taxaw ni président bi dama koy rey mbaam mu rey ma. amul homme politique bu fi mas a dem palais ba deux cent mille jeunes génnee président fi taxaw ni buñ ma buñ ma bu ma bokkul élection élection du fi am. amul homme politique bu fi wax ni gendarmerie euh, saaga gendarme gendarme tribunal saaga police saaga armée saaga journaliste bu amee homme politique bu ko mas a def Sénégal de ma diw la ku sonk Ousmane Sonko kon Ousmane Sonko moo taxawee euh, taxawaay boobu moo wax wax jooju moo jëf-jëf jooju moo tax na ma ni ci duut baaraam ni bu dee danger am na ci réew mi kii la te kon nag ku nga xam ne war ngaa défendre république war ngaa taxaw jàkkaarloog moom Ousmane Sonko fi taxaw am déet bu ko waxul rek ne leen ma waxu ko wax na ko am waxu ko moo fi taxaw ni que Macky dina ma rey ko wax na ko am waxu ko moo fi wax ni tribunal c'est corrompu moo ko wax am waxu moo ni yéen journalistes yi vous des corrompus moo wax am waxu ko moo ni magistrats yi avocats yi police gendarmerie tribunal c'est des corrompus et ils sont dans un complot contre sa personne et que pour moom mu ni kon institution yi duñ fi institution yi fi war a respecté moo ko wax ñëpp di ko dégg mu taxaw fii mu ni élection du fi am bu ma ci bokkul kon kooku menace la ci république képp ka nga xam yaa ngi défendre république nag te jàpp naa ni dañoo boole bopp ci ñooñu war ngaa taxaw ni ko loolu nga fa wax duñ la bàyyi nga def ko. non enfin yàgg naa bind lu jiitu tey di dénoncer loolu defe naa ni boo xoolee depuis euh, at yu bari maa ngi def ay chronique di artu ci loolu di ko dénoncer. wax naa la ni la bu fekkee déglu nga li ma waxoon ni bi événement bi jéggi dayoo nag amee février euh, juin bi passé. nga xam ne am nañ ci lu plus de vingt morts man ni nag nañ taxaw nag xalaat naa ni war naa mën a bind livre rappeler Sénégalais lu xew indi leen ay éléments information moo tax ma def loolu. je l'ai eu à dire que ce livre c'est une défense systématique vigoureuse et ferme et déterminée de la République la République est agressée dans ce pays pour une fois un homme politique sénégalais se met devant la face des caméras pour dire que je vais envoyer 200 déloger pour une fois, un homme politique sénégalais se met devant les caméras pour dire que la justice est corrompue. Les magistrats sont corrompus, les policiers sont corrompus, les gendarmes sont corrompus, l'armée est corrompue. Pour une fois, un homme politique sénégalais a invoqué l'ethnicisme dans son propos politique. Pour une fois, la presse a été insultée par un homme politique. Pour une fois, un homme politique a appelé à attaquer des domiciles de citoyens. Pour une fois, des, un homme politique a, attaqué, auprès de ces militants de profaner les de la République. Je dis qu'un un personnage comme cela est un personnage dangereux euh, qui est nocif à la République et que tout républicain, tout démocrate doit pouvoir lui dire d'arrêter. C'est une des motivations et la motivation principale pour avoir écrit ce livre.